nee na bu leen wutal yàlla ay moroom te fekk xam ngeen ni yàlla amul moroom dégg nga kon lépp lu ñuy jaamu tuddee ko yàlla du yàlla yàlla kenn rek la muy allahu samad mooy yàlla benn bi te nag lépp lu waay wut di ko jaamu boole kook sun borom tabaraka wa taala te du yàlla loolu ay tappale kese la nit ku koy def ku nekk amuloo ci benn lay amuloo ci benn justification yàlla sun borom tabaraka wa taala nee na wa man ma maa allahi ilahan axara laa burhaana lahu bihi nee képp koo xam ne yaa ngi jaamoo yàlla di ko booleeg leneen muy ay xërëm ay ndend nee na kooku amul benn preuve ci li muy def amul benn justification ci li muy def la muy def dara wéru ci ay tappale kese la waaye nag suñ borom mu ni fa innama xisaabuhu inda rabbih innahu la yuflixu alkaafiruun nee na nañu xam ne kat kooku day seenu atte mooy ñiy woote leneen lu dul yàlla wala ñuy jaamu yàlla di ko bokkaale yàlla mu ni seenu atte ma nga ca yàlla seen borom tabaraka wa taala ëllëg yowm alqiyaam dana leen ci atte ndax yàlla kat du texeel mukk xam ni weddi na yàlla weddi na ni yàlla sun borom tabaraka wa taala kenn la dégg te loo mën a jaamu lu dul yàlla loola du la jariñ dara du adduna du àllaaxira loo mën a yaakaar lu dul yàlla du la jariñ dara adduna ak àllaaxira ak la ngay jaamoo wala la yaakaar lu mu màgg mag màgg mag màgg ak nu mu mën a toll mënu laa jariñ adduna du la jariñ àllaaxira wadd suwaa yaoq nasr hubal ñooñu ñëpp nga xam ne yéefari dañ leen defaroon ñuy ay stati di leen jaamu tudde leen yàlla jëriñu leen dara ci adduna ak alaaxira yàlla suñu borom tabaraka wa taala nee na fama agnat anhum alihum alihatuhum allati yadcuuna min duni illahi min shay lamma jaa amru rabbik wa ma zaaduhum gayra tatbib yàlla mu ni seen yàlla yooyee ñuy jaamu boole koog suñu borom tabaraka wa taala di ko bokkaale ak yàlla nee na seen yàlla yooyee jëriñu leen dara dara dara dara fii ci adduna su fekkee mbiri suñu borom dikk na lan mooy mbiri suñu borom mooy mbëgalum yàlla nar na wàcc seen kaw yàlla yooyu mënuñu ko défendre mukk wa ma zaaduhum gayra tatbib dolliwu leen lu dul ak torox tànge lu dul ak toskore rek kon képp kuy wutal yàlla moroom torox ci ngay mujj àdduna ak àllaaxira yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na képp koo xam ne faatu na fekk ba ngay faatu yaa ngi bokkaale ak yàlla sa boroom nee na kooko day dugg sawara man maata wa huwa yushriku billahi daxala naar képp ku faatu fekk yaa ngi bokkaale rek suñu borom dara ak lu mu ndaw ndaw ndaw kooka yàlla nee na da dugg sawara yàlla nañu ci yàlla musal subhanahu wa taala